asalaamaaleykum suñu mbokki internet yi ñu ngi leen di nuyu di leen ziar di leen jaajëfal di am contentement ak mbégte comme niñ ko safoo di ko defee di leen dalal sur la chaîne leader Dakar People tey nag ñu fas yéene àndax kilifa boroom xam-xam bu kenn dul naatable ñaankatu yàlla bu ñu ràññee ci biir ak ci biti réew mi ñu gën ko xam si Cheikh Omar Niass nuyu nañ la. aouzu bismillahi arrahmani irrahim salaatu wasalaamu ala rasulillah assalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu ñu ngi nuyu mbokki biir réew mi ak mbokki bitim réew yépp di nuyu kilifa diine yi ak kilifa aada yi ak ñi ci jàngu bi ñu ngi leen di nuyu yéen waa Dakar People di leen di wax ne leen assalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu bismillah ñu ngi lay fay sëriñ bi tey ñu seet si la fii ci Ouest Foire comme ni ko faral di ko defee pour am ak yow waxtaan laaj ak tontu waxtaanee xam-xam waxtaanee pàcc yu bari ci mbiru xam-xam naa balaa ñu dugg ci waxtaan bi rek bëgg nañ tamit ñëwaat ci Cheikh Omar Niass ak digganteem ak alxuraan ndaxte daanaka képp ko xam Cheikh Omar Niass xam ne léppam alxuraan la léppam alxuraan la ko jébbal nan mooy diggante bi bu dox tey jaaruwaay taxawaay bi nga am ci alxuraan dayoo boobu noonu Cheikh Omar Niass lan la. alhamdulilah ñu ngi sant yàlla bu baax di jullu ci sangu-sang yi di sidna muhammad sallallahu alayhi wa sallam macha allah laaj bi ñi laaj noonu mooy suñu diggante ak alquran li ñuy wax waxtu bu nekk rek mooy yaatu na lool bëri na lool li ñu am yépp jox nañ ko alquran li alquran am yépp jox nañuy katam li ñuy jëflant yépp alquran la lu ñuy am lépp itam alquran la suñu diggante ak alquran waxtu bu nekk li may wax rek bu ñuy toog di ko yaatal di ko faram-fàcc danañ ci yaatal lu bare bare bëri waaye suñu diggante ak alquran moom lépp la lépp la lépp la macha allah alhamdulilah suñu diggante ak alquran a ngi noonu macha allah Cheikh Omar Niass leer li am na solo trop daanaka képp ko xam Cheikh Omar Niass rek daanaka da koy askanale alxuraan ndaxte dayoo bu ci am ijaaba bu ko suñu borom defal ci mbiram alxuraan daanaka léppam alxuraan la tamit bu ñu nawee alxuraan tamit dañuy faral tamit suñu xel tamit mun na dem ci mbiram kurus ndaxte yow tamit Cheikh Omar Niass képp ku la xam xam ne macha allah suñu boroom tamit may na la ijaaba may la càkkutéef ci mbiram kurus lan mooy secret bi Cheikh Omar Niass. alhamdulilah ni ma ko waxee ci suma diggante ak may jaale itam ñi nga xam ne nii seen doom yi génne nañu àdduna ci manifestation yi amoon ci Sénégal ci weesu nii ñu ci wax ne itam jàng nañ ci ñaar fukki kaamin ak juróom jébbal leen ko di wax ne foo mbooleem fu waa juru ñi gaañu nekk ñu ngi lay wax ne la ñaanal nañ sa doom jàngal nañ ko kaamin yàlla xare ko aljana yërëm ko te yéexee ñu mën nañoo wax ne sax ci génn gi ñu génn àdduna jihaad la jihaad la gi ñuy wax mooy dañ doon jihaad ngir seen liberté dañ doon jihaad ngir mën a bëgg dund dund gu baax loolu ci la yàlla moomee seen bakkan jàng nañ ci ñaar fukki kaamil ak juróom jaalee ko ñi nga xam ne nii ñoo génn àdduna ci manifestation bii am ci bés yi ñu weesu nii di ñaan yàlla réew mi tamit yàlla def fi jàmm bu baax a baax di leen di ñaanal yàlla ñoom it yàlla may seen waajur yi xolu muñ ñaan yàlla yàlla woyofal leen tiis bi ak naqar bi ci zaahiran wa baatinan ñu ñëw tamit ci kurus bi nga wax comme ni ma ko waxee ci suma diggante al alquran noonu laa koy waxee sama diggante ak kurus li may wax waxtu bu nekk rek mooy lépp loo xam ne nii yàlla may nañu ko ci alquran may nañu ko ci kurus ci lijaaba macha allah lépp luy alquran di joxe ñu war koo jëf ci kurus yàlla may nañu ko ñu ngi koy jëf ci kurus ci zahiran wa baatinan kon suñ diggante ak alquran a ngi noonu suñ diggante ak kurus a ngi noonu alhamdulilah li ñu ci yàlla may yaatu na bari na buñ koy wax itam ñu fi jugee ko alhamdulilah rabbil alamin macha allah Cheikh Omar Niass leeral yi am na solo trop daanaka ci pàcc boobu sax laa bëggoon ñëw ci nga xam ne umpale wu ni jamono ñuy weesu jamonoy xat-xat la woon jamonoy tiis seeti woon nañ la balaa mbir yooyu di tàmbali woon nga wax ñu jiñal ñu si uxsim bu rabbu ko ne dëkk bi xataa day saxar rek waaye du mës a tàkk daanaka loolu teg nañ si suñu bët dëkk bi jaxoon na mais yàlla daanaka suñu borom def na ci ndox mu sedd mais nag umpalewul ni am na ay ñi nga xam ne ay ndaw yi nga xam ne ay ndaw réew mi nga xam ne dañ see wàññeeku dañuy profité ci occasion bi di leen jaale di jaale seen famille tamit gis nañ ni tamit kilifa yu mel ni yéen taxawaay bi ngeen ci am dafa leen wàcce leen ay kaamin jàngal leen si ñaanal leen suñ borom jéggal leen tamit di masawu parents yi tamit xam naa loolu tamit lu am solo la macha allah ñu ngi koy rafetlu ci Omar Niass xam naa suñu paree ci loolu tamit bëgg nañ dugg ci waxtaan bi comme nu ma ko waxee ca njëlbeen waxtaanee xam-xam Cheikh ñas ku ne sëriñ wax seet ndaxte daanaka mun nañ ne seet mooy buntab sëriñ tey képp kuy askanale sa bopp sëriñ rek te xataa tële luñ naan seet daanaka kooku mun nañ ne du sëriñ ab courtier la. ne daanaka courtier sax dafa bëri si seen wàllu métier bi comme mu mu ko mënee waxee noonu Cheikh Cheikh Omar Niass bëgg nañ tamit nga ñëwoon ci dégg-dégg seet Cheikh lan mooy dégg-dégg seet ana lan mooy njëriñal seet doomu aadama. Ah, alhamdulilah ñëw nga ci pàcc bu am solo am solo li nga wax mbiram courtier sax moo tax ma ci leeral lii ma ci bëggal leeralal jaami yàlla yi man mii nit daf may oo. ne ma seetalal ma diw waaye boo paree bàyyil ma ko vocal ma bàyyil ko ko vocal sama vocal boobu lay déglu dem ne diw seetal naa la lii ak li ak lii moo am sa dund kon courtier gi ngay wax dama la koy firnde la lii ci courtier la waaye ñiy sant yàlla itam bu baax li nga wax buñ ne sëriñ seet a tax suñ nee ñaankatu yàlla seet ci la bokk li may wax waxtu bu nekk rek nit ki ñëw ne la sama jëmm bëgg naa xam lan moo ci gàllankoor bi lan moo ci jafe-jafe bi lan moo tax ma bëgg dem te mënumaa dem lan moo tax may bëgg a doxal sama yëf te mënuma koo doxal ana lan mooy gàllankoor bi nga xoolal doomu aadama boobu waroo naxanteeg jëmm jooju boo naxanteeg jëmm jooju rek mu ngi mel ni yow yaa ngi naxanteeg sa jëmm seet dafa doon loo xam ne ni dafa am solo lool lool lool ci biir mbiram ñaan yàlla ci biir mbiram sëriñ ñun nag ñu ngi ci sant yàlla bu baax a baax lépp loo xam ne ni listixaar la lépp loo xam ne ni seet la ci téere mi ramlu yàlla may nañu ci pàcc yu bëree bëree bëree bëri dama koy wax ba fi mu ne ni sax duma ko waxati képp kuy laaj Omar Niass digganteem seet dañ lay bàyyi nga dem ci population bi nga laaj leen Cheikh Omar Niass digganteem ak seet nu mu mel ñun foofu rek lañ ci ko nañuy waxee sax fi moom la ñuy posé question képp ku ñu laaj ndax mën nga seet dañ lay laaj ne la wàcceel ci mbedd bi nga xool nit ñi ndax ñun mën nañ seet wala mënuñ seet côté boobu moom alhamdulilahi rabbil alamin ñu ngi ci sant yàlla bu baax a baax a baax seet diñ ci gis ci jëmmi doomu aadama bi defar ci jëmmi doomu aadama bi bëri na lool yaatu na lool ñu ngi sant yàlla bu baax yàlla may na ci alhamdulilahi rabbil alamin mhm. macha allah Cheikh Omar Niass leeral yi am na solo trop daanaka mbiram seet tey jii mun nañ ne dafa nekk lu ama am solo yaakaar naa jaamu yàlla bépp mbir bu muy dugg war na ko càmbar war na ko saytu xool tey ji ba xam nekk na lu gën wala lu gënul ci moom bu amee tamit ay mbirum sarax yoo xam ne war na ko ci def mu def ko si te képp ku xam Cheikh Omar Niass xam ko ni macha allah sunu borom may na ko loxo bu gudd a gudd a macha allah ci mbiram seet may ko ci bunt yu baree baree baree ba tey jii képp kum si jëflanteel rek xataa tey jii booy dellu si waat yaakaar naa du yow say mbira lay indi mais da ñëw indi keneen. pour tey jii mu laaye ko biir mu dimbali ko mu jàppale ko suñu paree loolu Cheikh Omar Niass tey jii bëgg nañ tamit waxtaanee mbiram ubbeeku ndaxte maanaam fatxu dafa nekk lu xam tey jii tamit lu xam-xam solo la ci jamono ji ñu toll jaamu yàlla yi dañuy tey jii daanaka jamono ju nekk dafa nekk jamono ju joo xam ne ni jamono ju xaw a doy waar la mbirum koom-koom mbirum alal dafa am solo donc mbirum ubbeeku dafa nekk lu am solo te képp ku la xam xam ne suñu borom may na la ay bunt yu baree baree baree baree ay tegtal yu baree baree macha allah xataa tey jii buñ loolu rek mun na jël émission mais dañ lay bàyyi rek nga laay ci biir suñu mbokk internet yi yenn tegtal yoo xam ne tey jii képp ku la seet ci mbirum ubbeeku ci laay biir. Euh, alhamdulilahi rabbil alamin ci pàcc boobu nga wax am na solo lool ci mbiram xubbeeku doomu aadama yi may woow ne ma def nañ lu ne dox nañ ci lu ne pour xubbeeku mënuñoo xubbeeku bañ ko seqee ak Cheikh Omar Niass na leen ci zaahir ak ci baatin yàlla xubbi na leen ci mbooleem yëngatu yëngatu bu ñu doon yëngatu ñi ci sant yàlla bu baax a baax a baax ñi nga xam ne nii ñu ngi liggéey ay at mënuñoo téye mënuñoo am biñ seet see Cheikh Omar Niass ne ko ubbeeku rek lañ soxla alhamdulilahi rabbil alamin ubbeeku nañ ci ci zahir ubbeeku nañ ci ci baatin wàllum mbiram ubbeeku tey moo tax sax euh, ma def loo xam ne ni nit ñi dañ ma daan wax ne ma sa digganteeg alquran sa digganteeg kurus kese la moo tax ma indi leen li ma leen indil nii tey wan leen bu ci nekk li muy def ci doomu li ma teg nii yëpp tey biram xubbeeku la macha allah pour wan ko jaami yàlla yi ñi ci jëflante ñoom jarul ñu leen keewan waaye dafa am ñu ñu doon posé ay question ñoom ñoo tax ñu indi leen lii tey lépp luy waaye soxla ci dundam ci xubbeeku ci am-am ci téye ko nag léeg-léeg nit day am waaye du ko téye loolu du xubbeeku waaye boo ñu seetsee da nga xubbeeku te da nga téye am-am gi te da nga ko jëriñoo mm-hmm. wàllu xubbeeku moom su ma ci toog di ci wax duñ fi jugee ko ndax li ñu ci yàlla may ci ay pàcc bëri na lool lool lool lool ci biir alquran ci biir kurus ñu koy sante yàlla bu baax di wax alhamdulilahi rabbil alamin ubbeeku ku ci seet si Cheikh Omar Niass bu ne du looy réccu te ñi ñi ci seet si sax bu ngeen defee micro territoire laajte Cheikh Omar Niass ak ubbeeku nu mel danañ la man sama famille ñëpp laa mujjee jël sax yóbbu ci Cheikh Omar Niass mm-hmm. ñoom ñëpp la mujjee hubbi macha allah ñu koy sante yàlla itam bu baax a baax a baax suñ digganteeg xubbeekoo ngi noonu yaatu na lool lool lool lool alhamdulilahi rabbil alamin macha allah Cheikh Omar Niass leeral yi am na solo trop mais tamit bu ñu weesoo mbirum ubbeeku tamit bëgg nañ tamit laal tuuti mbiram bayre surtout Cheikh Omar Niass dañu gis nii da ngay jëflante commercant yu bëri bëri yu bëree bëree bëri ci mbirum bayre daanaka bayre njaay dañ ci yor secret bu bu doy waar bu kémtaan Cheikh Omar Niass. alhamdulilah macha allah waxoon naa ko ci sama vidéo bi ngeen defoon nag man ma ne leen ku ñu seet si. di jaay yore bitigu loxo. ma ne leen boo ma ne leen waxoon ne leen yore bitigu mbagg ma ne leen loxo sax bu ko yore balaa déwén dina yore ay magasin ci nuñ leen ko waxee woon noonu alhamdulilah. diggante bi jaami yàlla yi ñi ci seet si bëri na lool lool te ñu ngi gërëm yi lool lool itam alhamdulilah te lépp ñu ngi ko liggéey ak ñoom ci bayra muy bayre njaay yàlla may nañu ci saaxir may nañu ci baatin képp kuñ seq ak bayre njaay ñun dañ la ciy jàppal dale jox nañ la sin lii demal fi ak juróomi weer wala juróom benn weer ci loo nekk taabul wallahi boo amul magasin ñëwal lépp loo mës a jëflanteeg ñun ñu delloo la ko te fuñ tijjee rajo pour ñu wax fa ne mbiram bayra Cheikh Omar yoru ko wala yor na ko nga dem na leen yoru ko boo gisul li ñu lay defal uqsim bi rabbul kaxba bayra njaay macha allah yàlla daf ñu cee may ci zahir may ñu ci baatin boobu moom dañoo dem ba nga xam ne nii sax dañ ci sax mi maanaam nit day ñëw ñu ne ko soxla wuñ sa alal teel teel gi xam nga luñ ci jublu mooy ni li ñu yore ñun hóolu nañ ko te doyloo nañ ko ne teel sa alal nga dem fi ak juróomi weer boo gisut bayre njaay gi yokkute nga ñëw delloo ñu sin yëf wax ñu lu la neex te boobu jëlaguñ sa alal de yàlla def yow yaay tee sa alal dem balaa ñoo wax ak yow li ñuy wax balaa ñu laa wax dale bi ñu la wax yaay ñëw jox ñu lu ëpp lañ la laajoon wallahi laazim ndax bayra njaay liñ ci am macha allah macha allah su may toog sax di ko détaillé duñ fi jug mais Cheikh Omar Niass ak bayra njaay yaatu na lool lool lool macha allah. Hmm. macha allah Cheikh Omar Niass leer li am na solo trop daanaka émission bi mu ngi bëgg gudd waxtu mu ngi bëgg tënk mais Cheikh Omar Niass mun ñu la set si sans pour autant ñu waxtee ñaar ñu waxtaanee ñaari point yi nii xam naa foofu la ñuy bëgg a tëjee ndaxte sunu borom tamit daf la ci may loxo bu gudd gudd muy mbirum amum jëkkër jafe-jafe yi nga xam ne moo nekk ci amum jëkkër sëriñ bi sëriñ bi dinañ gis jigéen dana toll ci atum sëy am taar mel nu ko jëkkër nekk li nga xam ne da koy jafe góor tamit dana toll ci waru am soxna amum soxna tamit nekk lu ko lu ko xam ne da doon da koy jafe macha allah suñu borom may na la ci ay tegtal yu kémtaan Cheikh Omar Niass. Ah, alhamdulilahi rabbil li may wax waxtu bu nekk rek mbiram am jëkkër ak am jabar dama ne leen dama dem ba nga xam ne dama ci maye dokk dama dem ba nga xam ne nii nit ki bu ma ooyee ne ma dama bëgg am jëkkër wala dama bëgg am jabar dama naan laan ndax sell nga yaa ngi respecté waxtu yu juróomi ndax benn waxtu du la raw nga ne ma waaw ma ne la waxtu boo jullee defal lii ak lii wallahi laazim juróom-ñaari fan da nga am jëkkër wala di nga am jabar te sëy bi dina barke lool dina bëre wërsoog lool usim rabbul ba bu fekkee ne nii dara tënku la pour nga tere am jëkkër wala nga tere am jabar ma jox la sama ñaan gii ma lay jox wallahi juróom-ñaari fan laa la appal jabar dina ñëw wala jëkkër dina ñëw te ubbeeku dina ci am barke dina ci am su ma digganteeg am jëkkër wala am jabar macha allah macha allah bunt yu yaatu na lool ñu koy santee yàlla bu baax a baax a baax alhamdulilahi rabbil alamin macha allah Cheikh Omar Niass mais Cheikh Omar ñas Cheikh Omar Niass ak noob tasxiir ci wàllu njaboot ci wàllu jëkkër ak jabar tamit Cheikh Omar Niass suñu borom may na la ci ijaaba macha allah Euh, alhamdulilah suñu digganteek nopp muy tasxiir muy boole diggante muy famille bu tasaaroo ñu boole leen ñu bennoo doon benn say muy jëkkër ak jabar di xuloo di xeex di jàppante subaan ngoon guddeeg bëccëg ñu boole leen ñu doon benn say alhamdulilah yàlla may nañu ci mayin boo xam ne ni jël leen seen micro ngeen wara réew mi ak bitim réew li ñu ci yàlla may du jeex ñu koy sante yàlla bu baax a baax a baax képp ku ñu ci mës a seet si nañu sama jëkkër déggalu ma duy toog duy nàngam dañuy jotee subaat ngoon gu dégg bëccëg ñëwaat nga ne ma ah sëriñ bi mbaa li ngay def ni doo ko wàññi mën na lu tax nga ne ma bande damay bëgg mu dem du dem damay bëgg a dem duma ma mën a dem ndax boole gi ñu leen boole maara day ismu même famille bu tasaaroo itam buñ la ko dajaleelee am na ci ñoo xam ne ni buñ ñëwee sax dañoo ñëwaat ni ñu sëñ bi ah man de fi mu ne nii maa bëgg a jaaxal man lu tax nga ne ma ah man de suba ba ngoon sama téléphone bi du noppaliku ndax njaboot gi ku nekk may oo oh, yaay lii nangam papa lii nangam ak nangam man leen loolu lañ jublu woon ci yëf sant yàlla bu baax la suñu digganteeg boole miy nopp yàlla may nañu ci pàcc yu yaatoo yaatoo yaatoo alhamdulilahi rabbil alamin macha allah Cheikh Omar Niass Cheikh bu ñu paree ci loolu tamit gis nañ tamit suñu borom may na la ijaaba may na la loxo bu gudd macha allah tey jii mun nañ ne sëriñ si bu nekkoon fukk yaay doon seen ambassadeur si wàllu kayit daanaka wax nga ni sax dootoo ci waxti ndax ijaaba bu la suñu borom may daanaka xattaa bitim réew moodu moodu yi fa nekk kenn mënul compter dayoo buñ toll yàggoon nañ bitim réew grâce à yow tey jii bañ la settee ba nga jëflanteeg ñoom suñu borom may na leen kayit tamit si seen wàllu jafe-jafe yi nga xam ne tey jii dañ ko doon am si seen wàllu liggéey ku la ci setti billaahi buy ñëwaatee suñu borom da ko ci defal saafara. Euh, alhamdulilahi rabbil alamin foofu moom dama li nga wax rek waxoon naa ne duma ma waxati sama diggante ak kayit waxtu bu nekk benn wax ji laay wax mooy ni boo déposé dama lay jox dele 15 jours wala 12 jours boo déposé gut dama lay wax ne rek xaaral ba ma liggéeyal la li ma lay liggéeyal ba pare nga jëfandikoo ko dem déposé weer doo ko toog ñu oola ne la kaay jël si sa kayit alhamdulilahi rabbil alamin tamit ci ubbeeku gi ngay wax ci seen diggante ak waa bitim réew bëri na lool ñoo xam ne nii toog nañ fa ay at ay 30 ans ay 10 ans ay 20 ans ay 5 ans nee nañ ma luñ liggéey ci seen dund lay yem buñ ko fayee location fayee ko ndoxu courant def ko dund pare nañ ci uxsim bi rabbul kaaba wallahi lazim bañ ñu seet see jëflanteeg ñun ci diiru juróom-benn weer wallahi lazim am na ci ñoo xam ne ñu ngi rëdd seen fondement ci réew mi ba photo lépp envoyé ma ko suma la wonoon suma téléphone bii ñu ne ma cheikh bi ma ne la ñu ne ma ñun de bi ñu jëflanteeg yow wallahi ci lañ rëdd fondement yii kon loolu ñu ngi koy sante yàlla bu baax a baax a baax suñ digganteeg hubbeeku ci ñi nekk ci bitim réew suñ digganteeg kayit ci nekk ci bitim réew dama ne woon duma ci waxati waaye tamit noonu la ndax nit ki lépp looy jëflanteeg jaamu yàlla yi muy am sutura yàlla di ci gërëm waxtu bu nekk war nga ko mën a leeralal jaam yi moo tax ñuy ñëw di leeralal jaam yàlla rawatina suñ mbokk yi nekk bitim réew suñu digganteeg kayit ak suñu digganteeg hubbeeku alhamdulilahi rabbil alamin ku ñu ci seet si doo ko réccu ci zahir doo ko réccu ci baatin te ñi ñi ci seet tamit réccuwuñ ko ci zahir réccuwuñ ko ci baatin am na ci ñoo xam ne ni sax ñu ngi naan maan sëriñ bi ñaanal ñu feebar bi gaaw jeex rek ñu defal invitation nga ñëw seet suñu waaye loolu yëpp sant yàlla la ndax mbég guñ ci ñun moo waral ñu yéene ñu yéene ñu teraanga goog noonu alhamdulilah rabbil alamin suñ digganteeg kayite ngi noonu suñ digganteeg xubbeekoo gi noon ci suñ mbokk yi nekk ci bitim réew alhamdulilah sant yàlla bu baax a baax macha allah waxtaan bi am na solo trop macha allah mais daanaka waxtu dafa nekk li nga xam ne daf la tënk xam naa du ñu def lu dul ñëw bàyyi la nga tàggatoo ak suñu mbokki internet yi Cheikh Omar Niass lan ngay tàggatoo am lan ngay dénk askan wi. ñu ngi sant yàlla bu baax a baax di jullu ci sang-sang yi di sayyidina Muhammad rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam di wax ne ginnaaw sant yàlla bu nekk li xew ci réew mi fan yi ñu génn dañuñ ci di ñaan. di ñaan yàlla réew mii di Sénégal yàlla def fi jàmm yàlla def fi barke yàlla def fi benn ci njiitum réew yi ak askan wi te incha allahu rabbi ñu ngi koy ñaan te yàlla may nañu ko duñ toog semaine bu génnut te defuñu ay kaamil ñaan yàlla réew mi am jàmm nit ñi am jàmm ci zaahiran wa baatinan loolu la ñuy tëjee leen di wax ne leen ñu ngi leen di nuyu assalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu